sunu borom nag lépp lu muy def lu ne da koy wutal sabab waaye eh, man moomeen ñang wax dëgg yàlla ku ma xam-xam ni nag li ne moom lañ may toppee ëpp naa ko waaw. jox waa démb rek ci mujj démb rek. démb rek ci mujj nit wàññi na lu ko ëpp jox ma ko démb. ma koy nuyu moom eh, Ousmane Faye colonel bu port di nit ku baax démb la doon def bés ñu ngi koy souhaité ñu dem fa démb.

est que dafa am des gens tapis dans l'ombre loolu am na ci ndax ku nekk ci yoon del sóoraale yu mel noonu ndax euh, am na ci loo xam ni doo ko sax boo ci sax bëgg xuus waaye ñu xam ni rek du lenn lu dul ay pexe nit nag mën na toog fa muy toog naan diw de mënoon naa def lii su ma doon maay moom du dugg ci lii su ma doon maay moom def lee fekk ñun ñi nga xam ne ñoo féete ci milieu bii chaque jour nga gis téeméeram ku nekk bitim réew yónnee la ay teraangaam ngir woy yi ngay woy Serigne Saliou loolu liñ koy dund liñ koy dund xamul nu mu toll kon ci ci nit bu la ci bëggee pexe doo ko xam mënoo ko xam ndax chaque jour teraanga yi ñu lay jox ngir Serigne Saliou ci foofu lay jaar amna na ñoo xam dañ la ko yónnee sax ta duñ la wax duñ la wax sax ne ma man la diw. da ngay jëg ñang dañ ko ko jox way daw si da ko ko joxoon do ko sàkkuloo dara mo mel ñoom door xaliss bi après del na adiyela la yak dar bop te mo mel ñang di di ko am fami di am fu mu toll ci ciat gi lolu sa ka choqué. waaw loolu yëpp ay tuuma rek la. Hmm. ndax ni mu démé lu simple la nit ko yëkëti alalam di la may yaakar ci yow dara hmm. bëgg la xëy na mbëggeel mbëggeel cofeel la wala lu mën a doon mën a ko mënta nekk mu dem ba ci biir soppi ko mbañeel tuumaal la loolu kase la. loolu kase la mais amul leneen lu ci ne. Mm-hmm. waaw loolu kase la. Mm-hmm. loolu kase la.